suñu xool sedd na te lañ leen di jox aussi xamal nañ ne leen nañ ko waajee woon sax dañ koy yokk mu gën a jëm ca kanam ndax ñu ngi fàttali ne ASC yi ñu ngi daan jot deux cent cinquante mille balaa ñoo yegsi bi ñu yegsee ñu ne ñun comme que yàlla dafa dogal ñu bokk ci mouvement sportif bokk ci aussi mouvement associatif am ci ay responsabilité nekk président ASC football nawetaan am ci expérience xam ne nawetaan lu diis la ñu ne dëgg la deux cent cinquante mille baax na moom lañ fi fekk waaye nag dañ koy yóbbu gunge tey ASC donc yàlla dogal ret ji la ñu sóoroon sax si budget bi dañoo jëlaat suñu doole bopp yokk ko si jox ASC bu nekk un million mais aussi la zone ñu joxaale ko aussi un million pour tey ñu mun a organiser nawetaan yi ci dans de bonnes conditions mais aussi ASC yi am moyens yi war pour ñu mun a nekk ay équipes yu su ñu demee mun a andi ndam li ndam loolu mun a sagu Pikine Est ambition la bu ñu yàgg a ci gox bi ñu am aussi un financement très important boo xam ne ni c'est des centaines de millions pour tey ñu ne dañoo bëgg a pavé nag suñu gox xool ruq yeeg ruq-ruqaat yi ndax am na loo xam ne ni président de la république son excellence Macky def na ko fi ñu ne ñun ñi nga xam ne ni ay njabootam ne tey ànd ak moom doon ay ministre am mais aussi nekk maire suñu gox war nañu accompagner dynamique de développement boobu noonu ñu jëm vers l'émergence et la prospérité liggéey boobu ñu war ko tàmbali tey ñu lancé ko à partir de lundi ñu war a commencer nag di pavé rue yi nga xam ne nii gis nañ ne am na suuf léegi loolu nag liggéey la boo xam ne aussi du liggéey benn fan donc processus la lañuy ñuy pour démarrer donc jamono bu jot ñu am yan am ay ay zone prioritaire yu ñuy tànn suñu tànnee ñu def liggéey boobu bu buñ paree ñu songaat yeneen zone loolu buñ ko waxee aussi population yi recevoir nañ ko avec beaucoup de satisfaction ndax lu ñu bëggoon la lu ñu yàgg xaar la premier ministre lancement wu travaux yooyu moom mu ñëw defal ko boppam mooy premier ministre du Sénégal war a matérialiser vision au président ànd ak ñun ñi nga xam ñooy ministre yi bokk ak moom kuréel gi mais aussi mooy suñu candidat bi nga xam moom la ñu war gungee ci élection yi ñu jëm donc loolu aussi satisfaction population yi lay doon ñëpp ñëw accueillir ko fii département de Pikine wan ko ne ko ni ñu àndee woon ak président Macky Sall noonu la ñu fas yéene aussi gunge la ba li nga fi nga jëm nga mun fa àgg ci jàmm. am nga bennoo moom benn kilifa la ñu am te ñun ñëpp ñoo déggoo woon ne président Macky Sall lañ jox baat bi ne ko tànnal boo amee man pour man bu tànnee ñun ñëpp dañ ci war a adhérer parce que xam na ñi mu àndal xam na réew mi tey aujourd'hui li may wax le président Macky Sall connaît le mais aussi connaît les Sénégalais ndax relation bi mu am ak Sénégalais yi depuis trente ans quarante ans avant sax mu yegg si pouvoir jaxasoog ñoom tey choix bu mu def rek ñun dañu ci war a ànd dañ ci war a adhérer xam ne mooy njëriñu réew mi mooy intérêt wu Sénégal te na ki ñu tànn muy muy Amadou Ba am na xam-xam bi am na jikko ji mooy tey lépp lu ñuy xaar si leader bu war a mun a continuer liggéey boobu nga xam ne président Macky moo ko sumb daje na ci Amadou Ba c'est un grand commis de l'État koo xam ne parcours am ñëpp xam nañ ko occupé de très hautes fonctions ci réew mi te mu nekk ay fonctions yu yoo xam ne ku fa jaar am na lu bëri loo xam ne ni tey di nga ko maîtriser ci doxalin réew te nag PSE bi moom moo demoon uti koom-koom bi donc kooku bu ko président tànnee pour mu war a continuer liggéey boobu loolu xel mun na ko nangu li des nag mooy responsable yëpp comme àdduna aussi da nga koy jël misaal ci kër rek dina am loo xam ne ñëpp duñu boo ko gis-gis mais bu ñu bokk gis-gis day am waxtaan te ñooñu ñun euh, désespéré wuñu ci continuer waxtaan ak ñoom ñoom ñëpp ñu ñëw dellu si ci biir Benno Bokk Yaakaar jàppale ki nga xam ne mooy le président Macky Sall tànn mooy ki nga xam ne mooy le premier ministre Amadou Ba mooy candidat wu département de Pikine mooy candidat wu ñëpp ñi nga xam ne ni tey ñoo gëm président Macky Sall ñoo gëm la coalition Benno Bokk Yaakaar ñu war ko gunge ba au soir du 25 février 2024 ñu fal ko dès le premier tour mu am une boo xam ne nii nette et sans boo xam ne du am benn contestation